jërëjëf mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD yi mbokk yi le grand maître sant gi la ñu seet si muy Cheikh Waly Ndiaye di jàmbaar di borom xam-xam. gis ngeen coow li daal Serigne Modou Lo bu ñu tudd ko ba génnee benn vidéo am ne video bi ah, moom la ba tey Sénégal yu bëree bëree bëri ñu ngi ciy andi ay coow ay mbokki yi bu fàtte ne ba tey Iran Ndaw ah, mu ngi tëdd feebar. parce que Iran gisatuñ ko ci écran yi loolu tamit war nañ cee dugg andi ci ay leeral di ko ñaan yàlla defal ko ak tan danañ waxtaanee xam-xam danañ waxtaanee njariñ Sonko micro RTS ba gis ngeen nam ko def loolu tamit danañ ci dugg ànd ci ay leeral tey danañ waxtaanee lan mooy fal nit ak lan mooy folli nit mais laata loolu dañuy bàyyi saltige bi mu nuyoog askan wi ñu soog a xuus dugg ci dëgg-dëgg waxtaan wi Cheikh Waly ñoo ngi lay. rabbil alamin laa ji dégg ñu ngi lay fay nuyoo di la delloo ziar. di nuyu mboolem ñi ñuy seetaan yëpp ci biir réew ak ci bitim réew di ñaan yàlla lépp luñ fi nar a waxtaanee fii mu nekk njëriñ ñeexal ñu. Mhm. di kontaan trop ci ñëw bi ngeen ñëwaat fii suma kër macha allah. Mhm. Cheikh Waly tey ma bëgguñu waxtaanee njëriñ lu yaatoo yaato yaato bokk na ci njëriñal ñaan yàlla bokk na ci njëriñal li nga xamante ne moom mooy téye nit ba dara du ko yàqal mais ba tey saltige yi euh, xam nañ leen ci xoy bu ñu nee xooy mooy ren ndox dina bari wala ren ndox du bëri ren accident yi dina bëri ren accident yi lu bari loolu xeetu seet la boo xamante ni yéen da ngeen koy faral di def sëñ bi tey mën nañu duggaat ci xooy andi ci ay leeral. waaw alhamdulilahi rabbil alamin xoy su nawet bi di dënmal lañ koy def yaakaar naa am na lu ma la ci waxoon ci ay sarax ba nit ñi def nañ ko gis nañ yàlla mu ngi def commencé def jàmm baneen bi ñu ngi ñaan yàlla yàlla gën a ubbi ndox mi pour mu ñëw pour nawet bi gën a mën a gën a mën a barke xooy nag mbiru maam la su nawet taxawee da nga koy xool nga xool li war a xew ci réew mi. loolu yëpp waxoon nañ ci en tout cas daal am na sarax bu ma ci diggee woon def nañ ko waaye suñ ko mënee dollewaat mooy ndox mu sedd mi. lu mu bari bari baax na. dina musal nit ñi ci accident yi beneen bi dina musal nit ñi tamit ci rayante yooyu. beneen bi ndox dana wàcc te dana bari te du lor macha allah. tey euh, ndox moomu euh, ngëneel la ndox tawféex la sëñ bi ndox mi njëkk ci euh, taw bi nga ne ma am naa ko mi ngi fii. dama ciy liggéey loo xamante ni jàpp ma ne sëriñ buy dund mën na koo liggéey secret bi nekk ci ndox mi njëkk ci nawet bi. waaw alhamdulilah ndox mi njëkk ci nawet bi liñ làmbu lim ci li ci laxasu dafa bari. surtout ci wàllu kaaraange ak ci wàllu ubbeeku. dañ ciy liggéey loo xamante ni ne suñ ko defee ren balaa ñu koy defati déwén lañ koy def. dañ koy yi ñu koy booleel xam ko jox la ko nga sangoo ko ci ñeenti fan. su boobaa lu mu fekk sa yaram ci wàllu cat wàllu rab wàllu jafe-jafe liggéey daf am dara am na lu luñ jël ciy liggéeyal nawet bi du fekk déwén lu téye nga ci sa àdduna loo xam ne mosoo ko téye macha allah ci ubbeekoo. Cheikh Waly gis naa la ngay joxe bant bu ndaw bant boo xamante ni galañ la ah, gis naa ñu bëree bëree bëree bëri di ko fi jël si ah, galañ boobu ci lan lay dox. waaw alhamdulilahi rabbil alamin galan googu ci kaaraange lay dox li muy dox bari na day dox ci aar la benn dina la musal ci sa digganteeg buur ci wàllu kaso su nekkee bëggoo dugg kaso wala bëggoo buur teg la loxo galan googu daf ciy dox su nekkee ñu mel ni ñi nga xam ne dañuy frot di ut dara douaniers yi di leen arrêté wala police wala nangam. Mm-hmm. am na noo koy sexee di ko soccoo ñooñu duñ la duñ la gis kalan gi ñëpp xam nañ ko ci biir réew. Mm-hmm. ak ci biti réew. Mm-hmm. ñoo xam ne da ngay yore dara traversé dëkk ak dëkk. te galan googu moom moo la ci musal macha allah. loolu nag mbiru ceddo la mbiru cosaan la. kon ci aar nit lay dox macha allah. tey euh, nit ki buñ ko aaree ku ne xam na séeréer ci xeex ku ne xam na séeréer ci fagaru ku ne xam na séeréer ci. të lan moo tax des fois sénégalais yi euh, jéematuñoo të sénégalais yi ñoom nañ ubbeeku rek nañ am wërsëg mais ba tey ñagatuñu seen bopp lu tax loolu te bu njëkk mag ña kaaraange moo leen gën loon lépp. alhamdulilah xam nga nit ñi léeg dañuy jaawale. léeg nga gis sax ñu ne la euh, ñaanal ma yàlla ma am wërsëg. waaye wërsëg dëgg mooy nga të. parce que soo tëyee mën nga fee yàgg. te tànk yaa ngi fi yàgg rek wërsëg mun naa ñëw sa loxo. waaye soo tëwut mënoo am wërsëg wërsëg dëgg mooy wërsëgu te wërsëgu wér-gi-yaram ak gudd fan mhm. su ko boobaa lu nekk nag xaj na ci mhm. te googu nag nit ñi dañ koo sàgganee waaye nit ñi dañu war a të tubaab bi nga xam ne sax su defaree matériel dangay gis sax daf koy aar sécuriser ko ba nga xam ne sax dina ko dina ci tudd lu mel ni entretien mhm. léeg mu koy raxas léeg mu koy defaraat pour muy bees pour du yàqu doomu aadama tamit noonu la soo juddoo du dund obstacle yi ngay traversé dafa bari am na ñoo xam ne cat dana leen jàpp ba nga xam ne seen mbir yëpp dafay yàqu ñii rab ñii liggéey bu bon waaye nag ñun am na gàllaaj yu ñuy liggéey ci njaq séeréer yi wax naa la fii ne la séeréer suñ koy jàngal xam-xam seex xeex lañ koy njëkk jàngal am na njaq yi liñ ciy liggéey fasal la ko jox la ko soo ko sangoo lépp lu fekk ci yow dana dëñ te képp ku la liggéey liggéey bi dana dellu ci moom wala su insister da nga dégg da nga dégg dëjëm. képp ku la pexeel pexe bi du antu su dee accident la yàlla dana la musal doo ci dee su dee musiba la soo ko jëfandikoo musiba gi da ngay dem mu doot di ñëw wala nga mu dem yow nga doot di ñëw waaye doo dajeeg moom ci kàttanu yàlla macha allah kon daal. te lu am solo la Cheikh Waly njaq loolu ah, damay laaj ndax mu guy gi nga xamante ni yaa ngi ciy sang kilifa yi ban moo gën a garaaw guy gi waaw baax na yëpp a garaaw rek parce que yëpp bu nekk ak sa bunt la guy gi lu garaaw la guy cosaan la wax naa la amut buur buñ ci sangut amul président buñ ci sangut ci réew mii ak ci réew Afrique wax naa la junj naa la keroog 1959 ba Dégol ñëwee Sénégal que liiroon discours indépendance ba wal joojo Ndiaye guy googu fa lañ ko sange woon mu dem doo di pour mun a jàkkaarloog général de Gaulle adduna bi Sénégal autorité yëpp daaw moom mu jàkkaarloog moom ne ko dañoo soxla indépendance waa keñ kon loolu guy la goo xam ne guy cosaan la macha allah ñu ngi koy liggéey ci fal nit ñu ngi koy liggéey ci nit te ñu ngi koy liggéey ci ubbi nit njaq yi tamit même chose la rek su nekkee rab la am na njaq boo xam ne moom lañ lay fasal ubbeeku la am na loo xam ne moom lañ lay fasal su nekkee cat la ak liggéey. yëpp am solo daal macha allah. waaw ah, lu yéeme la ay ci mbokk yi numéro téléphone Cheikh Waly Ndiaye ah, mi ngi noonu affiché ci suuf écran bi képp ku ko ci woo rek di ko jot dégg naa yor nga secret bu oto. secret boo xamante ni bu ko nit ki defee ci saafara jëfandikoo ko yàlla daf koy dimbali ci waruwaay du oto sax de kese mais bu dee kër sax boo ko defee sangoo ko ci kër yàlla daf koy dimbali day bëri ay kër lépp lu ko def rek day zoom day yokk. waaw alhamdulilahi rabbil alamin secret boobu am na lépp loo am rek soo ko ci defee boole ko moom jëfandikoo ko la nga am benn da nga ko am fukk wala soo ko amul soo ko amee dootoo dëñ di ko am muy wàllu kër muy wàllu oto ba ci ay yére ba ci ay nàngam ba ci xaalis loolu yëpp nga xam ne soo ko xasee ba booleek moom jëfandikoo ko soo amul kër danga am kër te dootoo tàggoot ay kër su nekkee amoo oto da nga am oto te dootoo tàggoot ay oto soo amee oto tamit oto yi danañ bëri soo amee kër kër yi danañ ful te yàqute du ci am macha allah. lu hmm. Cheikh Waly tey jigéen ko bëgg jëkkër yéen séeréer si da ngeen koy ñàkk ah, defal ko jëkkër te bu demee ci sëy ba faatoo ko fa jëlee mais du tas. waaw alhamdulilah sëy dafa am nuñ koy yoree. Eh, suñ maam yi ñoo ñu ëppoon jabar te yoruñ dara te daan nga gis su jigéen ñëwee ci kër gi dootu fa génn loolu nag secret la secret la boo xam ne soo ñëwee am na lu ñu lay defal sa jabar moom moom dootul génn ci say loxo xanaa dee moom moo ko fay moom moo ko fay génne su dee jëkkër la tamit nga bëgg a nekk ci loxoom doo fa jóg mm. yow jigéen bi dootoo jóg ci moom xanaa dee moom moo leen tàgg loolu nag secret la mm. jigéen dafa am lu ñu koy sampee su ñëwee su ñëwee loolu nga koy sampee suñ takkee sëy bi rek am na loxo loolu nga koy sampee nga daaj ko ci su boobaa jeex na tàkk nag mm. dana jub dana dana la déggal li nga nekk ci lay nekk te faatu moo ko fay jëlee macha allah. waa alhamdulilah mbir mu doy waar la rek macha allah loolu yëpp dafay dafay tënku ci cat alaaji dégg alaaji dégg cat baaxut cat dafay topp nit ba ci bàmmeelam yonent bi nee na suma xeet su dee ñett dañoo gaañu xoolal ñaar ñëpp cat moo leen dugal ci bàmmeel kon loolu ku cat di dugal ci bàmmeel waxuma laak nag ci kaw suuf kon cat mën na laa lor loolu nag damaa gis ne cat la mu ngi woon ci yoon ñëpp bëgg ko ndeysaan ci ay kàddoom cat tamit cat cat cat topp ko mhm. li ñuy wax rek nit moom du naagu mhm. nit moom tànk yaa ngi dund bul naagu sa yaram moom dee koy defar foo toll mhm. am na nga génn ci mbedd benn bët rek mun naa xool sa oto rek oto bi am lu mu bëgg fekk bët boobu moo ko yàq benn bët rek mën naa xool sa jëmm rek nga fattasalu léegi nga daanu damm fekk bët boobu moom moo ko def waxuma laak làmmiñ bu la tudd kon loolu nag cat laa ko gisee waaye nag ñu ngi koy ñaanal yàlla it loolu yàlla tegg ko nattu la yàlla dafay nattu jullit Euh, te mu tuub su tuubee tamit bañ koo defaat parce que tuub loolu lañ ciy sàkku soo tuubee ci kanam yàlla da ngay ne fas yéene naa ne lii bu ma ko defaat te dootoo ko def macha allah waa kay ñu ngi koy ñaanal baax wax de yàlla métti na lool waaye nattu la ñu ngi koy ñaanal yàlla mu jub ñu ngi koy wax tamit mu gën a defaru ak ñi mel ni moom daan nga dégg ñu bëri ci réew mi tey déggatoo leen ñii ñu ngi tëdd feebar ñii ñu ngi sonn ñii ñu ngi nàndam loolu yëpp cat da koy def ak liggéey bon maanaam sax noonam sax mën na koo sànni lu bon ba jaxase xelam pour jëmale ko ci lu bon léeg nga gis nit koo xam ne fu mu dem rek sàcc fu mu dem rek nangam fekk dañ ko koo def léeg nga xool nit koo xam ne su amee xaalis tant que deful njubadi du am du am jàmm xaalis bi tant que njubadiwu ci ba mu jeex rek du am jàmm loolu yëpp day nekk ay cat day nekk ay def def day nekk ay rab ñu ngi koy ñaanal yàlla musal ko ci loolu delloo ko sago macha allah. Cheikh Waly tey ngelaw seetaane su ma laa lu bëree bëree bëri am na ci dëkk bi surtout ñu tëdd hôpital médecin yi di xool def seen analyse ñuy def test du ñu gis dara nekkate ngelaw seetaane moo leen sonal ngelaw dégg naa séeréer si dañ koy dindi. alhamdulilah rabbil alamin dañ koy dindi ci lu gaaw doomu séeréer moom li ma la wax xeex lañ koy njëkk a jaamal lu jëm ci ngarawal rab dañ koy raxas ba jeex ngelaw am na ñu muy topp di leen def seen wet. yàqal leen lu nekk macha allah dem ba tëddal leen. mun na laa yóbbu ci ba yóbbu la ci AVC ci feebar yoo xam ne yow sax xamoo ko. loolu lépp ngelaw seytaane daf koy def dafay jaxasoo ak moom dugal la ay feebar laxasoo feebar bi ñuy soo demee hôpital ñu naan lii la dal fekk ne loolu moo nekk ci gannaaw. loolu nag soo ñëwee am na lu ñu lay defaral dañ koy raxas ci lu gaaw a gaaw comme aussi ni ñuy dindee rab. di ko faj ci nit nga xam ne nit suñ ko yenoo mu daanu soo ñëwee ñu liggéeyal la loo xam ne. soo demee eh, di nga jóg ci jàmm su nekkee da nga amee rab nekk am eh, am na góor ñoo xam ne ñu ngi amee rab mënuñoo téye jabar mënuñoo mm-hmm. soxlawuñ plaisir u jigéen seen plaisir u bopp wala masturbation ci yooyu rek moo leen neex fekk rab moo koy def mm-hmm. su boobaa tamit am na tegtal li ñu lay jox dañ koy dindi ci lu set macha allah ak jigéen bi am àndaale tam bëgg borom kër àndaale bi tere ko dañ koy dindi ak kii am rab munta am dara wala am lu am mu yàqu loolu tamit dañ koy dindi macha allah. góor ñu bëri seen problème mooy mënatuñoo satisfaire seen soxna yi dañuy tiim seen soxna yi waaye prip dipp la. saafara si nekk euh, ci wàllum néew kattan laa bëggoon tey nga andi ci ay waxtaan ak ay leeral. waaw loolu wax naa ci waxati ko li ma ciy liggéey duut maa koy liggéey suma maam bi ma koy jox am na lépp téeméeri at. Mhm. melul ni nag ni ko gars yi di joxee. Mhm. jox la ko tey nga ànd ak sa jabar suba doo mën a ànd ak moom. Mhm. moom liñ ciy liggéey suñ la ko liggéeyee ba faj la ci lu gaaw. soo dundee téeméeri at tamit terewul di nga ànd ak sa kattan macha allah. loolu moom lu yéeme lañ ci am te nit ñi xamee nañ ñu ko. Euh, sëñ bi tey noo gisee Ousmane Sonko ak euh, micro RTS bi koy coowee taxawal fan yi waaw alhamdulilahi rabbil alamin ni ma ko gisee mooy dafay ut réew mi xëy na mer moo ko jàpp doomu aadama tamit ku ci ne dañ koy nangul ngant nit léeg-léeg xolam tooñ ko mu def loo xam ne defawut waaye RTS télévision nationale la su baaxee wala mu bon munta ñàkk nekk télévision nationale ñëpp ñun ñoo ko bokk te it xëy na biir RTS am na fa ñoo xam ne moom moom la ñuy moom la ñuy nooyee kon boog loolu loolu erreur la danañ ko ko danañ ko ko wax beneen bi danañ ko ko nangul xëy na xolam la rek ak sot xam nga mbiru opposant mhm. moo ko ci moo ko ci dugal waaye moom su demee ba toogaat dana xam ne lii erreur la parce que ëllëg li muy laaj mën na jiite réew mi ëllëg te su jiitee réew mi ci RTS boobu la fa yéene di waxee lépp lu muy wax RTS du mbiru Macky Sall du mbisu ñoom nag suñ jengee ànd ak Macky Sall bañ a waxal opposition lu baax ah seen affaire la terewut tamit télévision national la moom na def waree wareefam rek ñoom suñ deful seen wareef moom na def wareefam parce que dafa am lu muy lu muy sàkku macha allah ah, Cheikh Waly lan ngay tàggatoo ak looy wax askan wi lay topp di lay suivre ba ba léegi ci MPROD TV alhamdulilahi rabbil alamin dañuy sant yàlla bu baax rek di wax ne alaa jeg nit ñi ne ñaan lu yonent bi yàlla moo ñu ne ñaan leen moo may leen yonent bi mu ne su ngeen di dugg ci mbir na ngeen ko seet su boobaa da ngeen ci am rëccu après li ngeen ciy def ngeen door ko def kon boog ñaan mu fi am yu yu yu yomb yi dal nit ñi dafa bari léegi li waral loolu rek ñàkk nit ñaa ngi jàng mel ni ñu war a mel cent franc mënuñ koo am koo xam ne yaa ko ëpp diplôme fuuf jàngut dara su xëyee balaa muy tëdd ci lal million tegu ci loxoom wala lu ko ëpp loolu nag suuf bu sutantee dañ koo jar loolu yëpp dafa nekk loo xam ne ci wàllu ci wàllu yaram la la bokk. kon boog nit ñi ne ñaan lu. ñaan lu ne mun nga ko am. nit ñaa ngi ñaan lu këyit nañ ñaan lu am na fi ñu ngi koy ñaanal ay nit ñu koy am. nit ñaa ngi ñaan lu visa ñu ngi koy ñaanal ñu koy am ñu ngi ñaan lu ubbeeku ñu ngi ñaan lu kaaraange. na nga ñaan lu tabul tabul découragé. sëriñ si ñaan tamit nañ ragal yàlla. xam ne lii yàlla daf leen fee teg rek. pour ñu jaar ci ñoom pour yegg ci ñoom. Mhm. kon boog bu ñu exploité loolu. di ci lor askan bi. Mhm. nañ xool tamit seen digganteeg yàlla ci loolu. Mhm. loolu la ñuy tàggatoo di ñaan yàlla yàlla def jàmm ci Sénégal. def ko ci àdduna bi yëpp defal ñu ko ñun ñëpp ci zahir ak ci baatin wasalaamaaleykum wa rahmatullah ay ca mbokk yi dégg ngeen waxtaan wu am solo wi nga xamante ni Cheikh Waly Ndiaye euh, le grand maître saltigué waxtaan na ko mu nekk waxtaan woo xamante ni njariñ ak ngëneel la waxtaan wi dëgg moo ko lal waxtaan wi jub moo ko lal waxtaan wi xam-xam moo ko lal rawatina ci wàllum cosaan bu ñu nee cosaan xel yëpp dem ci aada bu ñu nee aada xel yi dem ci làkkat làkkat bokk na ci ki ñuy wax naan moo ci gën a jub ki ñuy wax naan moo ci gën a dëggu muy askanu séeréer jëmm ji séeréer la jëmm ji ñaankatu yàlla la jëmm ji borom xam-xam la jëmm ji ku dondu eh, ñaan la dégg nga histoire bu am solo bi mu nettali ci diggante Valdiodio njaay ak De Gaulle loolu lépp nag xam-xam moo ko laloon te maamam moo ko defoon ca guy gu mag ga mbokk yi guy gu dar gaa ngi nii mooy Cheikh Waly Ndiaye numéro téléphone yaa ngi noonu affiché képp ku ko ci woo rek dinga ko jot mbokk ñu doon topp duñu ñu ci MPROD TV yàlla na ngeen bëri jàmm ci darajay Muhammad Rasulullah